Tuubaa moo nu tàggale bu mu jaam xet li nu ba a ñun kon nan nan nekk ci lu neex sëriñ bi mm-hmm. te moytu lu lu naqari sëriñ bi mm-hmm. ndax sëriñ bi ñaar yi la fi rek mm-hmm. bilaa asan wala jalan wala xaran wala xidan lépp lu mën a doon nit ku ne war nga cee mën a sàmm sa bopp baax a baax ba am tawfeex sëriñ Tuubaa bu fekkee sax xëy wàññi gerte ngay ni tamit euh, euh, jamono jiñ toll nii nit kuy dox ci kaw suuf ko ëpp yërmaane sëriñ Muntaxaa ci jàmm ñoom seen waajur. mooy jàmbaar moo jur taawu sëñ Basiiru moo jur caatum sëñ Basiiru loolu boo duggee ci kër sëñ Tuubaa ay yombut. ñu tey na ba dee ci kër te amul loolu. waaye seen waajur moo ko jaayanteeg sëñ Basiiru moo tax yàlla fay nañu tey sëñ Muntaxa murit gi nan nan nañuy ñaanaa leen nañuy def ñaanal sëñ Muntaxa mu doon aw sas. bu ñu xëyee lu nit xam ne boo ko waxee mucc ci. nga ñaanal sëñ Muntaxa fasan gudd gudd. amiin amiin ndax nit la koo xam ne yéenam jëpp mooy liggéeyal sëñ Tuubaa. Mm. bu sañoon sëñ Tuubaa day fenk nit jant. Mm. wër a ni asamaan. Mm-hmm. dañ ni suuf. Mm-hmm. waaye loolu tawféex la joo xam ni yàllaa ko fay loolee. Mm-hmm. diir bi sëñ Sidi Moxtaar nekk xalif sëñ Tuubaa alxames ñu jot day yendoog moom ba ngoon def siyaaram dem ñibbi. toog li magam wallaahi kon lii mu nekk. du ndombaa ko ko may. du biteel. du reen. du pitaaw. du du du sarax bu mu daan génne tamit. ay magam. tey koy topp waaw. te mooy koo xam ne nii. sama benn xarit def daf ndongo naa ma sëñ Muntaxa ñëpp ko bëgg mën ko macha allah waaye man nga noo bu ko bëgg. dëgg la dëgg la ah, di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aska Jaxate bi nga xam ne ca bokk. Mm-hmm. samay doom bokk ca di ci ziare sama doom yooyu macha allah. ndaxte mbàkkol moom ku fa bokk rek noonu nga war a mel. wallaahi wallaahi ah, di jaar askanu jaxate gépp nag. ci jël samay doom yooyu yàlla bàyyi leen fi kattanal leen fi ban gën a góor gu kan moo nekk xalifa laaj baara ci ja ci sëñ sëñ sëñ baara ci jamono. sëñ Moustapha Mbacke Matilay sëñ Baar li ma lay wax ne moom moog sëñ moog sëñ Mourou Sa ñoo bokki moo sëñ Tuubaa noonu nuróoy bagaas mm-hmm. mooy jenn doomi sëñ Tuubaa desatu ci kaw suuf mm-hmm. jenn doomi sëñ Baar desatu ci kaw suuf ki njëkk a wuutu sëñ sëñ Tuubaa sëñ Mourou Sa la tudd mm-hmm. ki njëkk a wuutu sëñ sëñ Baar sëñ Mourou Sa la tudd ki njëkk a wuutu sëñ Tuubaa sëñ Mourou Baara la Sa ki njëkk a wuutu sëñ Tuubaa sëñ ki mujjee wuutu sëñ Touba sëriñ Saliou la Cheikh Saliou Mbacké ki mujjee wuutu sëñ Baara Cheikh Sidi Mokhtar nga xam ni sëñ Mourou Sa moo jëlee sëñ Touba yi indi njaareem sëñ Sa moo jëlee sëñ Sidi Mokhtar fii ci Tawfeex yóbbu yóbbu yóbbu Mbacké macha Allah te nag jamono ji la neex doo gis mukk li des li fi des kenn du beru am ragal du beru sëñ Mourou Sidi Mokhtar moom doo tëdd ci péncam képp ragal du beru mm-hmm. lim def ñi me ne ko te am na fit mm-hmm. te kii mu fi bàyyi nii lépp lu bàyyam doon def li ne ci moom a ko raw asgor la ab juddil la ku maanu la te ku ragal yàlla la saxu sa nit ku ci kaw suuf ku gën déedéet macha ko war ci sang mi ngi ci lu yor mën na ko bokk yow loo yor bu ko yow ku mën a muñ la nag muñu suuf la yor boo ko doon nappaaju fii ba suba nangu naa muñ waaye ab tab la waaye ab yaaram la tamit mm-hmm. wallahi azim sëñ Tuubaa laa koy seedeel mm-hmm. billaahi gëm naa la julli dëgg dëgg ma Cheikh Moussa. Mhm. day gën bëgg wala leen luy soxla soxluñu doom soxluñu alal soxluñu mhm. da koy nangu. waaw xaw ma gën bëgg lu Cheikh Mouhamadou Lamine. Mhm. adduna tamit xëy na moom dara loo fi am. lu mu bari bari da nga fi bàyyi. sëriñ bi rek moo jara bu dee koom-koomu àdduna. Mm-hmm. lu mu bari bari bari bari nit ñi dañ ko pare day taxaw di saw. Mm-hmm. sëriñ bi laa soxla. Mm-hmm. waaw jàmbaar nga lool yàlla na suñ ci waa taxaw. di la di sant sëñ Basiirou Mbow mi ma xamal. di la di la jaajëfal. ndaxte bi mu la waxee jotaay bi ak bi nga ñëwee motu sax deux une heure de temps. dëgg ci sa mbaax. ak ci sa goyof ak bëgg Cheikhul xaddin gi ngay wax. yàlla jaarale ko ci Cheikh Mamadou Lamine Baara. moo waral loolu ndaxte bu la neexoon nag sax ba nga nga nga gàntal ma. ndaxte su ma jombu tey leen ma sa gisante. te woo mu la benn yoon téléphone. leen mm-hmm. di jaajëfal sama waa ji nga dañuy dañuy dañuy xuloo di ànd ak àndaat. Mm-hmm. muy nit ku baax. ndax ba ma man laa di sant bu baax di la gërëm nga tàggatoo ci jotaay bi. sama sama la. Mm-hmm. sama xarit la ndax man lu ma am am. jukko laa jàppi nit du ma jàppi nitu taar jukko laa jàppi nit maa ngi sant bu baax di gërëm sama waajur wu jigéen suñu taxawu ko dimbali ko ba yéene ji ma am ci mu mottali ko di sant sama doom di ba mokkal alxuraan te wattu ko ci barakat Cheikh Ahmed di sant sama soxna di sant kenn ci man muy Cheikh Ndiaye sofóor Cheikh Sidi Mokhtar ak mboolem taal bi sëñ Tuubaa yi ni seetaan yëpp di leen a lii yàlla leen ëpp loxo. amiin ci barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ mm-hmm. di ñaan soxna si. Mm, soxna Jaara njaboot gi ngay tudd nii yàlla la yor. amiin ci barke Sëñ Tuubaa te mun na yàlla boo leen di sant sëriñ bi nekk ci technicien bi. Sané yàlla na ko Sëñ Tuubaa taxawu. amiin amiin ci barke Jaalibatul Maraaxib. amiin amiin maa ngi ñaan. teeleen xamante waaye yàlla yàlla doon xamante boo xam ne day sax incha allah barakatu Seexul Xadim ubbil na leen suñu bunt ci lépp ci lu ngeen soxla ci ñun mm-hmm. sëñ Tuubaa rek la ñuy la bu baax mm-hmm. sëñ Basiru sax mu jaay na santam léegi fii ah, waaw moom de jaay na sant moom <laughs> ah, damaa xamul nag Samba ak Sylla ah, kan moo ci moom sa sa morom Samba ko moom Samba ko moom waaw Samba ko moom ah kon nag di leen jaajëfal askan wi nga xam ne saa su ne Waarwi TV la ñuy bëgge toog di ñu teelu bu baax a baax di sant fàllu ma ci central ba ndax saa su ne moo ko jàllale ba askan yëpp di ko dégg di ko gis di sant sama cameraman bu baax bii nga xam ne saani sonal naa ko lool di santit waa Daaru Salaam ndax wax dëgg yàlla barki dem falan yendu macha allah ñu gën a lañu defal ñu toppatoo ñu di sant nag cant gi teg ko ci kenn muy sëñ Mamoun Mbacke moom sëñ Askade eh, Daaru Salaam kon nag sëñ Mamoun maa ngi lay jëfal bu baax sama sëriñ sa am ak sama xarit ak sa waa yëpp di sant bu baax a baax ba soxna Ndey Diop maam Cheikh Anta Mbacke mu sëñ Modou Rokhaya ah di ko sant ak soxna ma Astu Mbacke njaboot gi soxna Baali mboolem ña fa nekk yëpp ñu ngi leen sant baax di gërëm baax it baay baaxee ndax Daaru Salaam ñoom ñoo bëggal soxna Jaara bopp seen bopp kon nag di sant waa Daaru Salaam yëpp ndax sëñ bi kilifa taamu la bëgg la kooku amoon lu dul yàlla di sant sunu waajur yi nga xam ne eh, ñooñu boole ci yoonu murid nàmpatal ñu ci ban doon nii eh, di sant sunu wasila Sëriñ Seex Mbacke son di la jaajëfal bu baax a baax di ñaanal ñu def ndànk dem te wëy ci li nga xam ne sëñ bi santaane ko ñu wëy ci ndigal ndax murit kat buñ ko dee wax ndigal a tax ñu naan murit lañu wëy ci ndigal lépp loo xam ne sëñ bi nee na waaw nan na waaw buñ xaar sax mu ne déet ndax sëñ bi moom lépp lu ñu def rek ñun lay dimbale ñun lay xettali ndax ñoom moom ña nga ca lan war te kom nag jamono dafa soppeeku réew mi mel nii mbas mi dugg ci réew mi ñu gën a tënku ci li nga xam ne moom la suñ kilifa wax sëriñ Mountakha Bachir saa su ne mi ngi wax mi ngi ñaan mbalay sa di ko ñaanal bu baax nag ndax sëñ Muntaxa ñaan ni muy ñaan moo ñuy dimbali ah, bu ñu demee tamit di sant wax sëñ Moustapha mati lay moomut di ko sant bu baax baax a baax a baax a baax ah, di ko jaajëfal ak mboolem koo xam ne rek yaa nga Mbàkke Kajoor chauffeur yi ngeen def ndànk ndaxu yoon dem dikk waaye nag nga def ndànk dem dikk léegi ñu xool ni ñuy defee te paas tamit ñu bañ ko yokk te it ñu dawal ndànk te ku gëmmentu gaare ba nelaw ñun ñi dem di màggalee ñu ànd yar ak teggin te xam ne lu baax la ne wuti tan bàyyi kàddu goo xam ne dañ koy wax damay dem defante ji damay dem solo su méegu liggéey si Ahmadou Bamba xam ne naam am am murit sax daa war a solo waaye liggéey Sëriñ Tuubaa laajut loolu kon na ñu gën a tënku ci li nga xam ne moom moom la ñu sant ñu gën caa tënku gën koo def di leen jaajëfal bu baax a baax lu ci jub nag yàlla si borom moo ko jubal lu ci dëng nit moo matadi moo waral mu dëng sëñ maam sëriñ jërëjëf jërëjëf Mbàkke di sant di ñëpp di jaajëfal sama waajuru jigéen bu baax a baax moom daa sopp moom seen sëriñ boobu bu baax di ko ñaanal bay sang bay yaram yàlla na yàlla guddal fanam wéer di cëram ci barke sëriñ Tuubaa di leen joxaat beneen émission ci beneen waxtaan ci geneen kilifa incha allah ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf sëriñ Tuubaa Thank you.